di la nuyu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi janook interview bi nga may defal tey di balu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla sunu boroom jéggal ñu ci kàttanam gu màgg eh, ki jeera Adja Dior li jiitu mooy taalu bépp sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di taalu bépp Xaadimu Rasuul di jigéen joo xam ni dama bokk ci famille boo xam ne ki nga xam ne mooy sama ndey dama judd rek fekk ko muy liggéey di daan dooleem dugg naa école nag li ma lay wax toujours naan la bu ma làkk looy tubaab. dugg naa école waaye yàgguma ca bang ya hmm. ba ma ci jógee it li nga xam ne mooy li may def ba tey ma xam naa duma ne bàyyi naa ko completement sax nag waaye génn naa ci ci yu baree bare bare wàññi naa ko lool muy euh, li nga xam ni mooy liggéey ndax euh, li ma fàttaliku boobaak léegi mooy daan sama doole di liggéey di ànd ak samay nawle bi nga xamee ni commencé nañu di liggéey ndax ay femmes de développement ñoom laa doon àndal ñuy mag euh, li ñuy wax naan ànd aki mag baax na ndax jële naa ca lu baree bari ndax ki nga xam ni moom ma jëkk a dugal ci liggéey mooy kii ma la jëkk a tuddal mu sama sëriñ bu baax bi yàlla na yàlla yokk leeram sëñ Cheikh yi Gaynde Fatma di sama nijaay yar ma ci liggéey lépp lu ma xam ci liggéey ci lu baax moo ma ko xamal daan ma digal it ma daan fexe it ba lim ma daan digal ma di ci jaar di ñaan yàlla itam euh, génération yu bees yi jógit ñu jaar ci liggéey te sellal te jubal ndax loo rekk ay jariñ